waaw ku sa rek naan ndox <laughs> ma ngoog. dañuy rek am na ci solo. bu ñuy xëy daal. Mhm. takk di takk masque. jërëjëf loolu da ci am solo. Walf Quotidien lu ñu xëyee. waaw yéen a kaay gi Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee dellusiwaat ci mandataire Ousmane Sonko ay bi dafee biñ ne. jamono ji dañ koo dem jee eh, delloowaat fële ci désiré noonu la ko mm-hmm. yéen kaay gi xëy fësale ma nga àndoon ak ki nga xam moo di huissier de justice àndoon ak maître Ciré waaye gars yi dañ jàpp ne fu mu état bu Sénégal dafa nekk daal eh, def dilatoire noonu la ko yéen kaay gi di wàl fukka tëjee xëy fësale leneen aussi loo xam yi nga xam ne Alioune Sarr yëkkati na ko eh, TV ak mm-hmm. Walf FM wax ne bu yàlla defee kon mu jot ci bopp réew mi ñi nga xam ne ay borom doole lañ nekk fii ci biir dana am ay taxes yu mu te leen leen teg mm-hmm. xaalis boobu la fay jël da ko fas yéene dugal ci lépp lu jëm ci wàllu santé noonu la ko yéene gi di laas xëyee dellu siwaat ci lu ni mel nee nañu waa DGE jox Ousmane Sonko lii di ay fiche de parrainage am euh, démb euh, euh, kii di Ayib Daffé noonu la ko yéene kaay gi di laas xëyee fës ma ngoog Sud Quotidien fës na Sud Quotidien xëyee dellu siwaat ci lu ni mel yéene gi ne ba fii dañoo lànk ne kon waa DGE dañu lànk ne bi mm-hmm. ñu jox Ousmane Sonko lii di ay de parrainage am gars jàpp ne lii moom bu dakkul moom Ousmane Sonko ba mooy euh, ci forclusion la jëm noonu la di Sud Quotidien xëy fësale verdict ne fiche Sonko yëkkati ni seen kàddu euh, ko nag ñu ngay xuppan ah. noonu la ko kaay gii di verdict xëy fësale critique critique yéene kaay bu ñu deful ndànk daañu ko exclure maanaam ci exclusion la jëm ndax fu mu toll état bu Sénégal dañ nekk daal di jaf euh, affaire dilatoire noonu la ko yéene gi xëy fësale yéen kaay gi ne démb nag maître Ciré Clédor Ly yàlla yaram yaram tàngoon na jër foofee ca DGE mm-hmm. yéen kaay gii di critique ci loolu ñu jukkil yéen kaay euh, euh, lii di décision de justice yi noonu la ko yéen kaay gi xëy fisalee loolu aussi loo xam yéen kaay gi xëy na ko fisal mm-hmm. euh, wax na ne neexul ba neex waaye dafa juum te na nangu na dafa juum ci loolu nga xam yëkkati ko mm-hmm. noonu la ko yéen kaay gi di di 24 heures fësal euh, xëy fësale mhm, ma ngoog euh, réew mi quotidien réew mi yéenekaay xëy dellu soit ci Ayib Daffé mi nga xam ne daanaka démb moom ma nga woon ca buntu des ya mhm. euh, amu yéene ak mhm. nga xam ne moo di ay fiche de parrainage waaye loolu mujj te antu gi di réew mi ci loolu la xëy fësal ma ngoog yor bi xuus yéenekaay gi yor yor tamit xëy dellu soit ci lu ni mel maire si likkee ak Ayib Daffé ñoom ñëpp dañ leen mujjee delloowaat démb ci seen i kër maanaam dañ leen mujjee dàq sàkkoon dis yé ngay wéy kon di defi sunu bile mhm. yéeni kaay gi nag xëyee amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci Moustapha Niass AFP ak Benno bu njëkkoon ale alliance la woon moo mhm. doon seen diggante waaye tey ji mënees nañu wax ne Moustapha Niass ak taalibe lay gën a nduru ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar noonu la ko yéen kaay gi di yor yor xëy fës euh, source la ñu dégtal Moussa Diop bi dina nag ab bataaxal jébal ko juge ne mhm. ba ki xam moom avocat am daal. Mm-hmm. Euh, su ko defee mu mën ko defar ab procuration mu mën a jotee ci ay comptes am. su ko defee mu daal di fa récupérer trente mille yoo xam ne ni. Mm-hmm. dana ko mën a déposer ab compé ab caution mu ne la ko yéen kaay gi suuf saa xëy. ma ngoog euh, yéen kaay geneen le côté Abdoulaye Seydou Sow la dalal ci laaj ak tontu gi dox ci digganteem ak suñu naataangoo yi moom Abdoulaye Sow Seydou ma ngay ñaawlu. Mm-hmm. Euh, melokaan suñu administration bi de noonu la ko yéen kaay gi xëy fësalee nee na ci boo dem seen service yi uh-huh. accueil bi daal daanaka dafa jéggi dayoo na comme dafa mel dafa dafa xaw a doy waar uh-huh. yéen kaay gi loolu xëy fësal aussi dellu soit ci Parcelles Assainies la amoon nee na xaw tuuti rek musiba am fa ndax uh-huh. base ba nga xam ne foofu la président Macky Sall nekkoon base bi président Macky dafa dem rek deux minutes base bu mabbu mu nekk nag lu doy waar moom Abdoulaye Seydou Sow di ko ñaawlu ci yéenekaay gi di le quotidien ma ngoog euh, direct euh, news euh, tribune tribune yéenekaay dafa xëy dellu si waat ci candidat yi jëm ko ci ñi nga xam ay homme d'état lañ mooy ñi nga xam dañoo taxaw uniquement pour liggéeyal Sénégal ak ñi nga xam daanaka mhm. gi na xëy tey ji dañu xamle ak nit ñooñu leen ma ngoog le quotidien junni ak juróom-ñaari téeméer ci suñu koppar moom la mooy transfert de fonds diaspora bi fii mhm. Sénégal mhm. maanaam daal ñu am solo ci biir réew mi am mhm. ci atum 2022 dugal nañ fi lu ci toll ak junni juróom-ñaar téeméeri milliards suñu koppar noonu la ko yéen kaay gii di la Euh, soleil soleil euh, sud euh, le stade. Lamine Camara dalal ci laaj ak tontu gi dox ci diggante ak suñu naatangoo moom Lamine Camara mu ngay wax ci coupe d'Afrique des nations bi nga xam ne du yàgg dara dana tàmbali fële ci Côte d'Ivoire ma coupe d'Afrique boobu occasion la woon ñu woon adduna gépp ne ñoom ñooy mën ci Afrique mangoog ni la ko yéen kaay gi restat xëy fësal yàggatul te ñu ngi seen i tamit combat rëg-rëg ak bombardier dimanche ji lay doon ah yamoon mm-hmm. ñaar fukki fan ak ñeenti weeru décembre ma ngay amee fële ci stade